ndax ñu ci bari way jur la ci ñoom ba noppi mu doon xaritu ñépp moom sëriñ Seex di dund sëriñ bi nag te koy dund ci ñi koy waxtaane ak ñiy jàng xasaay mboolem mbokkam yi mu toogal ak ñi ci féete nii maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey fedd li sama taalube ñii ma baaxoo toogal ci sama kër ak furul sama kër dama leen di wax ni man nu la neex sant ko bu fekkee Cheikh Ahmadou Bamba mas naa wax sama am yenn jëf nangu naa di sab jàmm man foofu rek laa nekk man dama dul génn sëñ bi waaye ku ñëw ci sëñ bi boo jébuloo tey sax mën naa def discours ci yow man sëñ mag bi rek waaw ma kenn problème waaye bu la reer bi ñu la taaj bu la doyee doo xaaraan yi loolu kese la maa ngi fet li sama taalibe ci seen jëmm yi kenn ku ne ci yéen doy na ma sëkk ab sëriñ man ndax gisuma kenn ci yéen suñ mag bi laay xool ci yéen te suñ mag bi boo koy xool ci koo xamante si nii mel na ni sax waaw waaw ku mata di sax booy xool ci moom sëñ mag bi doo gis koo ko yow tubaab bi daf ni nul ne parfait waaye juum na sëñ tubaab moo mat sëkk mankiwut sëñ tubaab mat mankiwut ba ku la ba ku ko laal mu suturaalaale la dugal la ci biir matam gi sëriñ bi laa am sëriñ bi laa xam yàpp wi laa am man awma yax yi ndekete yooyu ñun ñoo yor yàpp wi sëñ Tuubaa du moroom seen maam sëñ bay jaxate mu baax ma dafa waxoon ni ndaw rek laa lu ni ràpp ak mag ma mag caña mag ndeke seen maam a mag caña mag dégg nga wax bi sëñ bay dani maamun sëñ bay nee na ndaw rek laa lu ni ràpp ak mag ma mag caña mag ndeke ña mag borom Tuubaa ca mag mu def ci man jëfi mag may mag ca naa ca ne ndaw ajaabani rahmaanu qabla alxalqi sabina alfa moo ko njëkk a waxal boppam waa amul moroomam ñi moom ku say nopp fattut nga koy dégg te li ñuy néew xam-xam yépp mën nañoo bañ a wax aaya bañ a wax bayit argumenté la loo xam ne di nga xam ni kii amul moroom ñoo ngi leen ni nuyu bu baax di feddali taalibe bi ci nuyoo rek laa tolloon waaye yéen damaa munta ñàkk taxaw ci yéen wax nit ñi ba ñu xam ni du ngeen ñoom du ñu yéen Mbakke yaram samaam la mu tagge woon ak ak tab bi ko Sëriñ Tuubaa tudd dafa fekk mu am fanweeri bëñ ak ñaar doon ko ci Rasulullah boo demee ci diwaan nam ba da fekk ñu bind ci wulida bil asnaam samaam daa ganewaale jamono fanweeri bëñ ak ñaar doon ci yonent bi yonent bi bu muy ñëw daa indi fanweeri bëñ ak ñaar suñ ma sàmba yi sa jeey loolu dal na ko wulida bil asnaami moo ne ci diwaanam ba sëñ Abdourahman loolu la sëñ bi àndal ak Cheikh Ibrahima Fatim maami ñiy toog ki ñëwoon fii bi fi ñëw met bi ñëw fi mettee Thierno ak sëñ Gaawaan ans la Cerno am ñëw fii am na ko wax fii sant ci kaw ni ci Cheikh fàtte fi njëkk a ñëw waaw moo njëkk ñëw fanweeri at ak ñaar solo yëre yi dabb daaxe te booba ku jëm ci tubaab bi dangay ngay waaj li mu njëkk a minimiser tubaab bi mooy lim sol tubaab bi xupp xupp wax loolu ku ko wax nga daw Cerno muñ bopp tubaab bi yàqu daa am ñaari sens maa ngi koy wax ak sëñ Cheikh du mu baax mi ci suba ma ni ko dafa am ñaari sens tubaab bi bi sëñ bi Cheikh Ibra Faati yi wax kiy jottali di jottali ndax Cheikh Ibra Faati lu baax la doon wax kiy jottali di waxul safaan Cheikh Ibra di wax sentir kanamu tubaab bi muy gën a sens mu ni ko kii waxul li ma lay wax sëñ mag bi nag daa ñëw di xàppati moom ka ñuy wax dut sekk doomi benn maxtaar di apaiser mu ne ko waxoo li may wax ndax dégg ñaar yooyu Cerno daa ñëw di wax liñ ko wax fii kanamu tubaab bi di gën a sens moo xam ni kii waxul li may wax mu ne nañ ma indil beneen interprète kii waxul li may wax waaye suñ mag bi daa ñëw di xappati dut sekk di apaiser mu nu ko waxoo li may wax waaw sekk nag daa yéene woon borom Tuubaa jàmm moo tax mu def loolu jërëjëf Ndiaye booba xamuñ sëñ Tuubaa nit lañ ko tegoon ñi doon jéem a wax ak pour mu teggi loxoom dañoo yaakaaroon ni nit la ah man nag ko bañ a dégg sëñ Tuubaa du nit bul ma jox rajo de yegewul fu nuy doon nit Amady Ba la. jërëjëf Ba boo ko waxee boo ko waxee borom xam-xami Sénégal yi di la wax ni nit a taxoon yàlla ne su jootal leen Adama d'accord ñun réeruñ ci loolu waaye xam nañ ni kii du nit ci loolu lu dul nit nit la gën mais xam nañ ni kii du wax li doon sax àdduna ngàbb la waaye fii la suñu Ahmadou Ndiaye maa bay ànd ak magi ndar yi. ñëw ci moom wax ko li ñu koy wax ñu ko benn signature rek a des ñun signature intervention bi signé nañ ko ndax ndajam tubaab këyit kii loolu lay wan kilifaam nga nee na rek nga signé wax ni fetaloo jiyaar mu bàyyi la nga dellu Ahmadou Ndiaye ñaar ñu yàqwante boo ngay njëkk ca ka jëm tubaab bi jàpp ko moo ko jàpp ñaar ñu yàqwante boo leen defaree da ngay ci ka jëm ci man nga waroon a jëkk gouvernement wu adduna bi ak li tubaab bi mel ci saa yi rek moom ak jotaayam bi mënuñoo dégg moom moo jàpp tubaab bi ñu linkaar te sëñ Tuubaa bu ma saan wax dara boo linkaaree da ciy teg lu gën a metti mu mu mu ko foox mu doo wopp ba ma ànd ak ba dem ko huit ans te télé bii kenn ñëwee faa yónni kenn ni ko doo dee ba ba ngay ñëw waaye bi linkaar xawee am rek sëñ bi garanti sëñ Amadou Ndiaye maa bay huit ans doo wopp doo faatu ba ma dem ba ñëw te dee moom ku ne xam na ni moom daa départ ñu départ rek mbedd mi ñu dugg di ko daw la jógee te mën naa ñëw waxtu wu ne nag. dégg naa de. mu gàntal wàcc ci bureau bi. xam nga kuy tere mbir te nga xam ne am na dooley songe nga koy def wan ko ginnaaw tubaab bi ku jaamu la doon tere sëñ tubaab di ko def wan ko ginnaaw mooy multiplier na ko par zéro faale wu ma la faale wu lay sëñ tubaab du lu mu wax day koo jëf parce que tubaab bi day tere julli toog jublu penku sëñ tubaab wan ko ginnaaw julli eh ngor bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi ak juróom-ñeent virgule juróom-ñeent yi seen maama ko jël benn bi la yi séddoo ko xool xool mu ni ko kazabta direct kàcc nga système bi nu teg sëñ Tuubaa ni ko dijjët teg ne indi yàllay kese sëñ bi kii li ko yàlla jaral mënut a ñàkk murit yi mel nii ñu mel ci moom barki Seexul Xaddim ah l'islam dafa demoon ba mel ni xalu sawara tubaab bi tànk potu ndox tiim ko mu lijjanti ba nangu potu ndox bi wutiwaat ay gànji fexe ba mu tàkkaat ku ne yóbbu sa kër muy boy waaye waaye kooku jëf ji daa war di wër àdduna waaye ku ko waxul it yàlla wax na ko de chakartani inda jamii jundikaa yaa dajale sa armée bi ba ñëpp toog nga ni ma Ahmadou jëre jëf chakartani inda jamii jundika yaa xayra jaarin xat ma gastu àndaka sa jumaa neex ma toog lu fi góor defoon lu baax yàlla rattrapel na ma ko ma def ko bi ma ko defee ba noppi ku mel ni man du am radiyallahu allazi qad fata min al xuyuri wa misaali fata e eh, ñu tedd ña seen pay ya yëpp seen seen may ya yëpp yàlla boo leen teg sama loxo xustu mawaahibal kiraami turra la daa taxarrubi kafaani sarra sëñ tubaa nee na su gaa yi jaamoo yàlla seen giiru dund ma jaamu yàlla sama wenn weer sama wenn weer tege ci balance bi seen giiru dund sama wenn weer a ko gën a diis wala yi jaxalta bi ka kulla sahri fawqa ibadatil wara fi ri sëñ bay jaxalta ni ko ku fekke sa julli bis ak cant war na ko ngir sa genn kàbbar a gën julli juróomi junni na góor mësta dem moo tax genn kabaram moo gën jullit juróomi junni te loolu lu yomba misaal la nag directeur général day fayeeku millions yu dul jeex ki ko gën a sonn nekk ci service bi di liggéey 30 jours comme moom di fayeeku ab 200 mille te mooy ne naaj wi kenn ci kër gi niveau rek a ko waral fi suñ tubaa ne ci yàlla ku fa ne na na la yàllay joxe du ko joxe gaa ñi munta nekk am déet ñun ñi nga xam ni ay nit lañu sunu kër yi ki fa dàq def li nu santaane moo gën a doon sunu xarit wala déet am déet ki saxal garab ki ci dox ki ci dagg xob du leen niroole garabu gi yàlla gi ku dul suñ tubaa mas daa def la ci dagg xob ndax dégg nga ma wa taxasallahu ibrahima xalila lan déggoon waaye dañoo dox ba jamono ñëw suñ tubaa dóor loxo bi ci dënn bi ni sabata kaw niya xalilallaahi billaahi sarmadan xabiballaahi te xarit day dindi dëkkëreb xaritam wallaahi inni yaqillun lil ilaahi bihi hibbun lahu duna kasbin fihi ijsaaw xarit mën naa bind décret xaritam Cheikh Abdou mii Mbakke yaram su dogaloon ci këram loo xam ni njaboot gi bëgg nañ mu dañ duñ woy magam duñ woy rakam xaritam la ñuy seet mu ñëw waxtaan ak moom changé décret bi Sëriñ Tuubaa mooy xaritu yàlla ça va amul explication sawara lan jëmoon ñun dañoo départoon rek jëm sawara mu karkaral nu dëpp nu jëme àjjana barki Seexul Xadiim xëye Mbàkke bari jolof bisu tey bii dañ cee war a xalaat fi ñëw ci bànneex lañ fi ñëw ci ay climatiseur lañu yendu am de di lekk li nu bëgg ngóor góor góorlu condition yi ñu war a nekk yépp ñu nekk ci mu xel dal sëñ Tuubaa bi mu fiy ñëw daf ne xusuuriya qallat wal ahlu anni tafarraxat wàcc ndar ci lu niru tumuranke wàcc ndar ci lu niru tumuranke ndax du nit moom du tumuranke yàlla la wéttalikoo waaw wàcc ndar ci forme bu niru tumuranke départ Mbàkke Bari ci forme bu niru tumuranke waaye moom du tumuranke nafa li gayrillahu xablu fi nari suñ mag bi tuurankewul ndax doomu aadama moom mooy am ak ñeewante wala ñu koy ñeewante sëñ Xaadim Jóob sëñ bi dafa niroog ñun parce que bu niruwuloon ak ñun du ñu mën a jariñ waaye du ñun ca Adama ak Awa xam ni mosoo toog yegg suuf toog yegg suuf mii ñuy def ñun dafa neex mu jaay ko yàlla lu dul jotaayu julli sëñ Tuubaa mës ta toog yegg suuf rek mas ngeen a gis ku mën loolu ku ko mënul rek du sa morom du du balancer ay loxo jéem a la dox génn génn école bii te balancer woo say loxo dama ñun ñu fi nekk di ay taalibi sëriñ Tuubaa bis bi tey ñu a lépp lu ñuy sant sëriñ tubaa tax ñu koy def damaa bëgg képp ko fi ne Cheikh Bara Gajaga na ngeen lamb seen addee ñu jox ko sëñ euh, Saliou Samb mi addee Serigne Touba wala kon du kon ne waxtaan barke Serigne Saliou Mbacke kii bëggal nañu Serigne Touba damaa bëgg ngeen lamb li nekk seen poste ñu jox ko addee Serigne Touba. bisimilah bàyyiwuñ kenn boo demee Dakar jëli jëli salaamaaleykum wa li mu wax la kii li wax day wax sëñ Tuubaa. sëñ Alaaji dog buumu njaam gaañee nga koy waxe nu ne waaye Cheikh Ahmadou Bamba moo libéré nit ñu ñuul ñi nit ñu ñuul ñi mosuñoo am kenn koo xam ni moo taxaw doon seen patrimoine bu nu goree sëñ Tuubaa la ñuy wax jërëjëf ñun ñu ñuul ñi mosuñu ñoo nawloo gànnaar lañ gën a jege waaye boo fa masaan wàcc dañ lay teg tànk ab puruñ lañ lay jàppe ab kawri barki seexul xaddim moo fa mas a dem ñu jàppe ko kawri dox as bëgg koo nawloo dox as niir raam mas naa dem te mas naa mas taxaw ci montagne boo xam ne ci gànnaar jub ak gàdde jub ak gàdd ñu wax kilifa gàdd ga shérif ba ni ko am na ku ne fee di jaamu yàlla waaye ab kawri la mu am ku mu yabal kooka ñëw xeeb jëm ni xeeb ñuulaay bi tax nuyu ko suñ tubaab ni ko bala nga maa wax bala ngaa wax danga maa war a nuyu mu bëgg a ndax xeesaay bi suñ tubaab wax ko li ko waa ji yónni tontu ko mu daw mu samp xel bi xam ne kii du nit ba mu yeggee dañu ko kee jóg jot na de li nga ma waxoon fii yépp la ma waxaat jóg jot na de ci gàdd googa la soxna Fatima Suura waxtaan wi moo jëmul foofu waaye fa la jëlee soxna Fatima Suura mi nga xam ni moo meññ Cheikh Ibrahim waaw keroog dañu kilifa ga ba ñu waxee ba gindi ko dañu ko sa borom moo ma wax ni daa am ku war a feeñ ci man koo xam ni fii ci sa kër la ko koy jur di jóge sa borom ma wax ni nag seen maam rek a ko daan wax yàlla nee na alxuraan mbaa sëñ Tuubaa rek seex sëñ gaawaan nee na ko fii ci Gabon seex mu ni Mbàkke mu ni ko sa borom nee na dinaa dellu si mën ngaa waaj seex nigul ma laaj sa borom dugg génn ni ko seex sa borom nee na dinaa dellu si mën ngaa kii mën ngaa waaj dox tuuti tàmbali karam naa di way ba mu yàgg mu ni yàlla na nga yaatal ba defal ma sama taalibe bu ñuy toogee sax di ma waxtaane nga defal leen ko laylatul xadr makkin wa wasin wa muksi jaal bi tawsiatin ka laylatil xadri ahyaanan fa ahyaana moonu mën a ñaanal yëf yooyu dox ba yàgg mu yàlla def nga may dellu waaye su ma nee cëpp képp ku nangu rek bokk ci man bokk ci sama ñooñ na dem ajjana bu mu dem sawara ijaal rujuwaay ilaa xawmi saadatana wala yow ma jami xalqi ndiiraana wàcc samedi Ndakaaru moonu libéré dugal ci rangu gën sëñ bi gënantewul nee na seen borom mi nga xam ni moo gënal ku ko neex ci biir gënam gi la ma dugal te yàllaa gën ñëpp unzur ca Israil kayfa faddalnaa ba'dakum alaa ba'din wa lal-aaxiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilaa mu ni taqdiiru zil qudrati wal iraada faddalanii wa huwa lii araada lu yàlla mas a jox góor joxe na ma ko nu mu la ko joxewul lahu kitaab bi xablu rabbi hëblii maa lam yakun li saalihiina xablii yàlla na waxoon gaa yi ay saalihiin lan demal lan am wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyas kullun min as-saalihiina ca lan am yàlla jubal man yahdi llaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu mu ne hadaaniya al-haadi fala adillu an sabilillahi la udallu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mu aj loxo bi jël engagement iyyaka a'budu wa asta'inu fa innaka al-ilahu wal mu'inu ihdina sirata almustaqim mu ne hadani allahu ala sirati almustaqimi lastu za ifrati e eh, seen maam kenn du moom ne coow leen fi ne nii rek waaye ku liir mindam xam ne du yow na la àdduna bépp topp laa la wax waaye boo liiree mbindum borom Tuubaa xam ne du yow de fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran mun yasara li mu yasirul asiri ma ajizal wara la daa masiri walazina yumassikuna bil kitaabi mu ymassaktu bil kitaabi wa aqamu salaata min jaa iqaama li salawaati al xamsi bi istixaama inna lan bi ñoo ajral muslihin la araaf lazina yumassikuna bil kitaabi wa aqamu salaata inna la nudiu ajral muslihin masaktu bil kitaabi za iqaama li salawaatil xamsi bi istiqaama sëñ galas jatara yal na yàlla guddal sa fan ak ma laa bëgg man kuy nab nabi te xamoo ci sëñ bi dara sax di ci jéem a wax dama lay bëgg xam nga lu tax sëñ Touba dama koo jaay sama bopp mu fay ma ma lekk njëg gi maa ko ameel moo tax kuy wax ci moom dama lay bëgg ndax damaa waroon a doon fukki jëm ak juróom-ñett fu ne ma taxaw fa waxtaane ko kon ku mën a dem fee mën fee dama lay bëgg yaa may gënal sama bopp suñ xaadim jóob jërëjëf maamun bu waxtu yu jotee rek mën ngaa jóg lu ñëpp bokk lu ci waay am day doy te bu reer doon doy reeri daaw ya doy bis bii suñ xaadim njaay daan mais nga xam ni Cheikh Abdou Lat ma rema jaxate rek la bëgg turandoowu Cheikh Abdou laat say nii moo ma woon ni ma Amadou Fifté nga ci bitim réew ba muy njëkk am laa la wax waaye nee na daa bëgg bu la 5 septembre jotee nga ñëw ndar waxtaaneel ko boroom Touba ba muy njëkk am laa la wax ma ne ko ak jàngkat mu ne ma waaye yaay wut jàngkat kon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na jox na ma naw bu baax ci màggal gi eh, eh, ko def nu dul màggale nag sëñ lam anhu ma lam yu fi di waaw waa koo xam ne diiru dundam dara dara benn cerce ba benn seconde mu see am bu amul njariñ waaw Mbacke yaram danaa yónnee yéen ku ngeen jox mu jël yéen ku ngeen jox mu jël balaay si rawatina bisu sëñ tubaab bi damaa dégg barki démb doomi seex Béthio mu baax ma doomi seex Béthio wax ni daf ko jox ay milliards mu dem gànnaar ci tele bi nee na di jënd nay ba xaalis bi jeex mu war a ñëw nee na bi mu waree dellu si bàyyam woo ko ni ko foo toll mu ne maa ngi dellu si mu ne ko bul dellu si dafa am ku ma yónnee téeméeri million te munta ñàkk ma dugalal ko ko ci ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi moo tax Amadou Gueye Amadou Gueye bernde yii muy def lii muy taxaw di ko def munta ñàkk ci yoon wi de koo xam ne noyyi bu mu mës a noyyi mooy Sëñ Tuubaa noyyi bu mu mës a noyyi pertul waaw lam anhu maalam yu fi di mooy noyyi bu mu mësa a noyyi waxuma la jotaay waxuma la lenn lu mas a xew ci àdduna bi ci sëñ Tuubaa bokk ci pertul lu amul njariñ amu ji maalam yu fi ku mu mas a dajeel njariñu nga te dootoo loru njariñ loolu dootoo tàggoog moom ndax lu amul njariñ du jege borom Tuubaa mu mel ni Seydou taxaw na waaye di nga ma may tuuti li may nuyu sëriñ si ci laa jaar waxtaan waxtaan am de damaa war a nuyu gaa yu baax yi xam nga man bu ma nee sëñ Touba ngeen baal ma day mel ni damay connecté su ma connecté nag dootuma tal nuyoo damay dem ci sëñ bi man noonu lu ma yàlla bindee man dama amul sago ci sëñ Touba. maa ngi gëm ni lenn rek laa am lu baax ci àdduna lenn rek laa am lu baax ci àdduna mooy bëgg sëñ Touba waaw leer na ma biir biir na ma ni Saliou Sam moom bëgg na sëñ Touba yi ci des yëpp dara baaxu ci waaye bëgg naa sëñ Touba te xam naa ni bëgg sëñ Touba baax na moom may nuyu ni ma ko waxee woon bi may tàmbali sunu sang si sëriñ Xaadim Moustapha Saliou sëriñ Abo Moustapha Saliou sëriñ Abdoulahat moom Serigne Cheikh Say mën nañu fee teewal Serigne Mourtala Salim ak délégation bee mu yónni yéen fu ngeen teew Serigne Mourtala fa teew Serigne Cheikhoum Serigne Salim wa fa teew waaye sëñ Dan meeg Cheikh du mi ak Cheikh Awa Balla ak sunu kilifa yi mën na noo teewal sëñ seex Saliou fu mu mën a doon ba ci sëñ Abdoul Khoudous ak sëñ Ahmada Ami ndax sëriñ bi kenn la du ñaar kër amu fi ay néega fi am kër gi mooy borom Touba am deet néeg Cheikh Ibrahima Faty ci biir borom Touba ci biir kër borom Touba néeg Cheikh Saliou Mbacké ci biir kër borom Touba néeg seex Moustapha Al Karim ci biir kër borom Touba néeg Cheikh Abdoulaye Marema Jaxate ci biir kër borom Touba néeg sëñ Fallou ci biir kër borom Touba kese ah sëñ bee am mooy li ma wax comme sëñ bee am nag kenn ku ne ci yéen mën na fee teewal Cheikh Mourtala sëñ bi rek am kenn nekkul njabootug sëñ mën numbe gee toog mën nañ fee teewal sëñ ndax sëñ bi rek a nekk sëñ Alaaji Ka kon mbooleem ñii sant Mbàkke ñoo ngi leen di nuyu tey fedd li sunu taalube ci yéen sëñ Xaayim Njaay Zidane ni ma ko waxee léegi bis bii moo ko tàmbali moo ma woo téléphone ni ma daa am sama xarit bu tukki boobu mosumaa gis fifty daa bëgg bu ñëwee nee na yow Saliou Samb nga ñëw ndar waxtaanal ko Sëñ Tuubaa ci bisu ñaari rakka yi moom laa waxal gisuma fifty li ci war a xew yépp moo ko ci def ba bisu ñaari rakka laa door a gis fifty mu yaatal lool ba mu ko defee ba noppi dafa arrière effacé wu bàyyi ma fifty te taxul loxoom jóg ci mana bi corona bi bi corona bi amee nga xam ne dañoo tere rassemblement damay jékki-jékki rek dara ñëw mu wama ni ma yéen ñu nekkal ci sëñ bi kat suñu xaarim Ndiaye mii damay jékki-jékki rek dara ñëw moo sëñ Saliou yéen a ñu nekkal ci sëñ bi wama bi ni'mati rabbika fa haddis man lam yaskuri naasa la yaskurillah noonu la daa def parce que moom moo ngi gis ni ñun fi ñu nekk moom lañ fi nekkal te dëgg la de sëñ xaadim jinne mii ku mën a taxaw doomu aadama la bi ma xëyee yegg si fii mel ni ku gëmmentu sëñ xaadim amatul jàmm xamoon naa ko nag miinoon naa ko waaye yëg doomu aadama geeg fonk gi moom tey la ma gën a leer si jalaaji ka yàlla na la yàlla yokk ñooñu toog ak sëñ xaadim ci plateau bi bu ma xamoon seen tur dinaa leen nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu sama gaa yële madun caam mi ñëwoon fii léegi sëñ alaaji ka bi ngay laaj fan yi maag sëñ jiili lam mi danoo toog ma war a jóge sama kër am fu ma jëm smart bi ci sama poos mu woo ma ni ma sëñ Saliou damaa jënd téléphone Huawei boo xamante si nii yaa moom fan nga nekk fi ma jëm takk gi jegeeg fi mu nekk ma jaar fa maag sëñ jiili ànd jël téléphone bi moom laa moom laa def ci sama poos nii koo xam ni nag bi muy def ci yow bi muy liggéey liggéeyam xamoo ko bi muy jàng fi mu amee xam-xam ba liggéey xamoo ko buy jël alalam di ko jox ci yow am na ku tax war ngaa xam ko maa ngi nuyu soxna yépp sumay xarit lanu damay bañ a dugg ci ab lim di desal waaye yaayu fifteeg xaritam yépp ñoom soxna soxo ba ci ñoom soxna mami Jóob ak bisu ñi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllu média te teew fi ñoo ngi leen di nuyu di di jox seenub nuyoo nag jigéen ñëpp jërë ngeen jëf bu dëngee rek man la nañ ma baal xaq ku ma gis te tudd ma laat bëggoon naa laa tudd waaw bëgg naa tudd ñëpp sëñ Moustapha Samb sama mag ju baax ji waa maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw di feddaliwaat sama nuyoo te yóbbante waa kër Seex Ahmadou Kara yi seen way jur wa sama siyaar ak sama nuyoo ndax ñoom xam nañu ni mu ma def te xam nañu fi ma ko teg yàlla na yàlla gën leen a dëgëral ci barke Seexna Ahmadul Xadim maa ngi leen di balu xàq yéen ñi sant Mbàkke ñee ndax nun seenub jaam kese lan jërëjëf Seydou maa ngi lay balu li nga wala rajo bi yàgg na waaye eh, wala fi dañuy wax ni koo xamul nam la def na koy def nam la def rek a tax gaa ñi teew fi kenn ku ne day séq ñun loo xam ni sëriñ bee tax ma koy séq ak ñun kon genn génn jërëjëf ñu leen di wax jariñul dara waaye mënta ñàkk sëñ Pape Sambaat ñoo ngi koy nuyu képp ku fi ñëw taxaw na la sëñ Pape Samba mii féeteel fif ci ndar ñoo koy nuyu moom ñi mu àndal waaw sëñ Paye Diarra ak ñëpp rek ñoo ngi leen di nuyu waa ndar yi ñoo ngi leen di bégge bu baax jërë ngeen jëf